waaw euh, di wax ni ñaari mbër yu différent lañ comme ni nga ko waxee Ama dafa dafa nekk xale ñu teel ko waajal pour mu nekk roi des arènes mm-hmm. Ama bañ koy bañ koy tuddal turu roi des arènes daanagul ñeenti mbër ñu gëm ko mu nekk benn gëm-gëm boo xam ne dafa dem ba nekk philosophie mu gëm ko durant carrière am yëpp yàlla teg ci loxo mm-hmm. vraiment mu def carrière bu honorable bëreeg ñi mu war a bëreel daan leen amoon rêve rêve bi nag euh, dafa agsi si càppandaw bi muy amoon rêve bu bëri le titre roi des arènes yàlla indi na ko ci eh, ñu ngi naan mat na wala matul mhm. jot na wala jotul dimanche lañ koy xam mhm. muy bëri koo xam ne tamit ba muy ñëw ci làmb Euh, ku ne woon dina mës nekk jour roi des arènes euh, dañ lay xoolaat wala dañ lay weddi parce que dañ doon wax matul mbër mm. wala kii du sori ci làmb mu dugg ci gars yi xuus wane lim fi wane def preuve yi mu fi def bëre at ñi mu war a bëreel ba xëy ne coppet le titre roi des arènes ci biir ponkal yi ko mm. tey muy bëre xale boo xam ne tey euh, ku naqaree préparé la muy Ama Baldé ndax mbëru gétt la mbër la boo xam ne euh, kër gi mu juddoo làmb dafa dafa dafa yàgg euh, ay magam doon ay mbër ba ci seeni jigéen doon ay mbër ah. ñuy dund làmb ay <laughs> ñuy dund làmb mm-hmm. donc nag ah, mu nekk xale boo xam ne wax dëgg yàlla dafa am reebu jël le titre de roi des arènes mu daje koo xam ne dafa daj ay coono li mu am ci làmb di ko mérité ba jël réew titre de roi des arènes te mu jox ñaari ñaari xale yi gën a dangereux ci làmb ji jox leen loxo hmm. war ci njëkk daje ak Ama mu doon combat boo xam ne Sénégal ñu bari dañ cee tiit mais ku xool Modou day mel ni combat bi vraiment jëlu ko très très au sérieux te combat bu ko gën a ñor la ci àddunaam combat bii moo di di bëri combat bu mu mës a bëri ci àdduna bii moo ko gënal. lu tax parce que bëggul Ama Balde daan ko. moo du ñëpp daan ko moo ko gënal Ama Balde daan ko. parce que polémique bi ci juddu depuis ba combat bi taxawee ba léegi entre ñaari quartier yi entre les dirigeants. wax yi ci génn euh, xas yi ci am. ba imprégné moodu dugal moodu ci combat bi Modou dugg ci combat bi à cent pour cent mais boolewul ak dara ak wax pat ak organisé la boole mu nekk combat boo xam ne tamit ñaari mbëri ku nekk da nga yor lu daan sa morom mhm. Ama dafa yor lu daan Modou Lo commencé ko par Ama dafa yor lu daan Modou ndax dafa di xale bu amagul dara xiif bëgg am doon gént ba xëy day ak géntam mu jaral ko lu nekk mu jaral lu nekk ay mbokkam mu jaral lu nekk fa ñu dëkk waa Pikine te Ama bu Modou bu jëlee titre roi des arènes ci ki nga xam ne mooy ndaanaanu Pikine muy Eumeu Sène di magam di defaat première sortie duggaat Pikine mhm. jël fa ki xale bi gën a xarañ muy amaa Baldé kon Modou dafa am projet wu dès le début raxas Pikine mooy tey bu daanee Eumeu Sène daan Ama daan Boy Niang amatul Pikine kuy wax tëj na Pikine te loolu Ama ku ko xam xam nu mu mel ci Pikine xam ni papa mel ci xam seen famille nu ñu mel ci Pikine te ba léegi kër Falaay titre roi des arènes mosu faa dugg ak jaloor yi Falaay def yépp ci làmb titre roi des arènes mosul dugg kër Falaay te ñoom ñëpp seen rêve ba Ama di tàmbali ñoom ñëpp boo leen dégloo boo déglu ay interview dix ans quinze ans ci ginnaaw dañ doon wax mbër maa ngi nii mooy dugal roi titre roi des arènes. parce que papa Dieng ko doon joxoon naan ko mi ngi nii. bu ñëwee ngeen xam ne ñëw na. mu xam ngeen xam ne ñëw donc nag agsi na bés bi nag dimanche la muy daje koo xam ne nag wax dëgg yàlla mbër la boo xam ne il est imprévisible mbër la boo xam ne ci moom rek laa gis mbër buy taxaw di xeex di bëre mbër buy bëre di jàppante di xeex. ci moom rek laa ko gis. Modou Lo Modou Lo. pour yow waaw parce que ku xool Modou ni mu jëlee roi des arènes ci ki mu ko jëlee ci Eumeu ak manière bu mu ko jëlee. Mm. Eumeu Sène combat gën a metti ci làmb munoo ci génnee combat Eumeu moom mu ñëw kaawoo ko. mu ñëw kaawoo ko ci façon bi mu ko kaawoo Eumeu Sène ko doon songi. Mm-hmm. ba léegi kenn xamul fi loxo Modou jaar ba ëmma jël coup bi dañoo jékki-jékki rek gis ëmma dëpp mhm. Sénégal ñëpp à notre grande surprise ba léegi kenn gisul loxo Modou Lo ku ko gis na ma ko wax tellement que ci rapidité d'exécution bi ci mën a mbër di ko song mu gàttandu la balaa ngay xalaat di def li nga soxla mu def soxlaam. def na la ko yow. def na ma ko. Mhm. def na ko Issa mhm. def na ko ñëpp def na ko Boy Kayre def na ko ñëpp. parce que tellement mbër la boo xam ne dafa am intelligence en mouvement ba pare il est te mbër la boo xam ne dara jaaxalu ko ci biir géew dafa mën a paramètre géew mën a mën a cadrer adversaire ci noo mënti ñëwee bu dee ci bëree bu dee ci xeex noo mënti ñëwee pare na Modou Lo mbër la boo xam ne doo am programme mu at mbër day ne pare boppam day adapté wu ak selon mbër mi mu nekkal ci biir géew waaw mais kon lu tax Ama ne ko man su ma xamoon ne su ma su ma su ma xamoon ne nii nga mel jarul sax may sonn ci million yi ma dépensé. waaw loolu bataille psychologique la parce que. combat la boo xam ne tey Ama loolu dafa bokk ci ay objectif am ay projet am mooy tey def tout ba déstabiliser Modou def tout ba énerver Modou pour combat bi mën a yomb ci moom parce que Modou bu serein Modou bu ànd ak léppam Modou bu ñëw pare taxaw pour bëre mbër bu naqaree bëreel ngay am. mais gis nañu Modou Lo dafa ci li combat bi amu ci poids boo xamante ne am na ko boo xoolee boo xoolee ñaari taxawaay dafa mel ni Ama moo koy euh, moo ko moo ko poids loolu tamit est-ce que du nekk benn benn genre handicap ci ci Modou. waaw Modou Lo mbër la boo xam ne heure bu solo yére moo yaa ko mbër la boo xam ne foo maigre la heure bu solee yére ku mu toogal yéen ñaara tolloo wala nga ëpp ko mais heure bu ngemboo ba dongali ba dox. ba yaram bi tàng di nga xam ne kii ponkal dëgg la te ci Modou combat bi nii mun naa wax ni forme bi mu yoroon ci contre bombardier moom la yor ci combat ci komba bi. te mooy forme idéale bi wala pour yow. mooy forme idéale bi mbër la boo xam ne wax dëgg yàlla dafa am programme euh, professionnel boo xam ne am komba ñàkk am combat il est toujours dedans Modou mosuma ko gis mu benn jour lundi ba vendredi te du contact du fooyee bëre dafa bëgg a bëre. day dox ci mbedd bi sax ku mu gis songu la bëre ak yow parce que tellement que dafa dafa dafa bëgg bëre te boo xoolee léegi loolu dafa commencé raar ci monde làmb mbëri léegi dañ commencé di bañ contact mm-hmm. mbër yu mag yi surtout dootuñu contact dootuñu dajee na coono yi dem saal def open press ah daw tuuti ñàkk dem bëri ji xoolal léegi làmb làmb bu njëkk mbëri dañ daa bëri lu yàgg mm-hmm. doo gis mbëri sonn léegi deux minutes ku ko bëri arène national tekki sa ngemb parce que mbëri contactatuñ kontak ba ca war Modou foofu la ëppalee mbër yu bëri day foowee bëri ba bëri nekk ci moom foo ko laal mu bëri. léegi Ama Baldé fa la war mën a jaar Modou pour daan ko. waaw Ama ci fougue de jeunesse ci gëm-gëmam ci la ko papam doon wax ca lañ ko waajal ba mu agsi ca lañ ko waajaloon. mu jël ko au sérieux te Balla ngi ci wetam te Balla xam na Modou mhm. miin na Modou daan na ko mhm. daan na ko minimum deux fois waa xam nga nekk ci wetu mbër at bërëg mbër yombul bokkul nekk ci wetu mbër ànd ak mbër mi at bërëg mbër mi bokkul parce que Balla yàlla da ko may loo xam ne moom rek la ko may ci mbër yi mhm. buy bëreeg Modou ni muy jegee Modou moo dul arrangé Modou takk tànk bi du nangu sori Modou te rallonge am heure bu ko Modou songee heure bu ko Modou songee dugg ci biiram da koy jëkk jàpp te bu jàppee da koy xañ a jàpp te du ko bàyyi mu xalaat parce que Modou tamit buy bëreeg à chaque fois buy bëreeg Balla Gaye du bëree du bëree at at at at su bakkenam at dal par rapport ak ni muy entamé ak ni muy aborde yeneen combat yi. mooy li Grégoire doon wax c'est-à-dire Balla du ko may mu réfléchir. du ko bàyyi mu xalaat. est-ce que amaam tey mënu ko ñëw tegal ko xatami loolu Balla rek moo ko am ci Modou. Balla rek moo ko am ci Modou ndax Modou buy bëreeg Balla xol lay bëreeg Balla du bëreeg Balla at xel. par rapport ak combat yi nga xam ne Modou da koy entamé yëpp ak yeneen adversaire yëpp xoolal heure buy à chaque fois buy bëreeg Balla mooy bëgg di njëkk def action. par rapport ak yeneen combat yëpp di nga ko gis mu jël temps balancé wu xool adversaire am taxaw sëgg fi mu sëgg taxaw di xaar. boo deful dara lu yàgg mu door def Balla heure buy bëreek Balla toujours ci une minute dafay am lu muy bëgg def day am lu muy bëgg prouver Balla léegi Balla loolu si loolu lay jouer xam na ni Modou heure bu ko Balla piégé ci ay wax bu ñëwee day dëggal boppam Balla de mun na ko woo ci xeex ñëw bëre par exemple yooyu la koy def d'accord